waaw Kaja comme ni nga ko waxee noonu la Pape Ibrahima Senghor bokk ci coalition Diomaye président moom la ñu fas yéene waxtaaneel euh, ak li nga xam ne moo euh, nar a ubbi foofu ca naajo tey jii euh, di dialogue national bi waaye xam naa ne balaa boobu dañ koy laaj xalaatam rek ak li nga xam ne moo xew démb foofu ca tribunal donte verdict bi génnagul Pape Ibrahima déjà yow lan mooy sa jàngat par rapport à ces deux di Bah Diakhaté ak imam Cheikh ti Ndao <clears throat> li ma si xalaat mooy bon comme ñoom ñoo faral doon wax naan il faut que justice reste à la il faut que le force reste à la loi. Mm-hmm. donc nañ jàpp rek force restera à la loi donc pour man amul benn problème. Mm-hmm. maintenant euh, li may faral di wax politique euh, àndul ak wax bu ñaaw. Mm-hmm. Euh, et de quelque bord qu'on puisse se situer nga nekk opposition nga nekk pouvoir mu nga def politique sans pour autant nga gis ay wax yu ñaaw wala ay baat yu ñaaw di ko teg sa visage bi donc rien que par rapport à ça pour man. Euh, loolu war na servir de leçon hmm. alors euh, dégg naa aussi mu wax ne la vidéo incriminée c'est une vidéo boo xam ne depuis temps yàgg na et que amnistie bi kii na ko en fait hmm. donc pour man loolu am sa importance wax hmm. bu ñaaw muy tey muy démb muy barki démb ak foo ko mën a ak kañ la ko mën wax war ñu parce que ñun duñu peuple boo xam ne dañuy wax waxu ñaaw te man wax naan sama noppi ay nopp garme la donc du ma si dégg du ma si nangu dégg euh, wax bu ñaaw vraiment donc loolu moo si am après le 3 incha allah lu ñuy wax pour verdi bi. Hmm. attendons le 3 pour xool euh, mu wane te mu jëkk ay ak ay këtam. Hmm. mais li si mën a am daal mooy nañu politique. Hmm. mais ñu ko def de façon civilisée. de façon respectueuse et respectée. waaw bu ñu defee loolu rek parce que enjeu yi. tey bu ay genre wax débat yi yem enjeu yi mooy naka la ñuy def muy opposition muy pouvoir. tenir ay débat yoo xam ne des débats des débats de haut niveau des débats yoo xam ne si li. soxla lu soxal dundu Sénégal yi. Mm-hmm. ci wax mais pas ay yoo xam ne moo wax lii kii moo def mm-hmm. mm-hmm. loolu ci loolu sax am na ñu bëri ñu jàpp ne euh, tey jii euh, dialogue bii di tijj tey jam ñaajo du priorité sénégalais yi sénégalais yi am na leneen lu ñu gën a soxla ci wàllu dund ci leneen peut-être ci lu dul waxtaanee wàllu justice est-ce que euh, vous êtes d'avis par rapport à ça. amul benn priorité bu ëpp justice. Hmm. parce que euh, xam nga dañu la justice est le dernier de la société. Hmm. xam nga loolu la ñuy wax. Hmm. donc tey jii nag xam nga justice ñett ñetti pàcc la. civil bi euh, pénal bi ak ak te ñetti pàcc yooyu moom moo tënk ñun suñu activité euh, quotidienne. donc amul benn dara lu gën a important justice parce que tey jii buñ bëggee développé wu. te amuñ un cadre juridique boo xam ne mën nañu permettre ku si nekk xam lan moo la war ak fan nga a yem. Mhm. amul sens. Mhm. voilà donc pour man c'est c'est vraiment la priorité des priorités aujourd'hui mhm. c'est réformer la justice parce que ya a une y a une crise de confiance. boo xam ne moom entre le la justice. waaw ñëpp si loolu ñëpp seetlu na ñëpp ñëpp wax nañu ko. quand on dit que la justice elle est rendue au nom du ça pour nous. Hmm. la justice elle rentre au nom du peuple. Hmm. te maintenant si ce même si justice bi. Hmm. ak si bi di nu muy doxee. mais si c'est tout à fait normal ñu taxaw. waxtaanee ko or quelles sont les réformes à apporter. pour que justice bi soit ginnaaw suba. lépp lu mun mun a jël comme dagal. ku si nekk gis si sa bopp. mais am justice boo xam ne bu tey bu ñu waxee nii ñu d'accord si ñii bu ñu waxee ñuy si ñii loolu dafay indi problème. te je crois que le président Bassirou Diomaye Faye dans son programme ah axe bi. donc loolu mooy xëy na boo xoolee même suñu programme euh, de campagne axe 1 bi loolu la njëkk a kii muy la nekk loo xam ne mooy priorité mm-hmm. bu ñu tegee cadre boo xam ne ñëpp xam ne ku si nekk xam nga li la war mm-hmm. ku si nekk xam nga fan ngay dem ak noo koy doxalee mm-hmm. donc ñu mën a avancer sûrement mais lentement lentement mais sûrement vers mhm. mais Senghor Sénégalais yi aussi euh, depuis bi ñu leen falee ba tey ngeen nekk ci bopp réew mi président Bassirou Diomaye Faye ñoo ngi koy xaar ci ci leneen est-ce que aussi euh, à un moment parce que man damay damay damay gis ne quand même résultat yi ñuy xaar. peuple sénégalais yi dañoo bëgg changement changement boobu dafa am leneen lu ci lu ci bokk justice boobu tey jii nii dafa yàgg taxaw pour le peuple sénégalais est-ce que tey su ngeen wootee waxtaan dialogue national comme ni ngeen ko waxee euh, ngir waxtaanee wàllu justice alors que am na yeneen priorité yu fi nekk est-ce que aujourd'hui loolu narul dem ba créer benn euh, ambiguïté boo xam ne sénégalais yi duñu mën a comprendre lan moo war a jiitu ak lan moo warul jiitu euh, Ablaye boo fàttalikoo. y' a euh, juin euh, mars deux mille vingt et un. waaw yàggul de ah. non yàggul waaw. Euh, juin deux mille yàggul. waaw boobu noonu. waaw y' a eu des décisions juste qui sont qui ont été rendues. Mhm. peuple Sénégal bi génn gisu seen bopp mu am fi ay ay ay lu kenn xamut. Mhm. parce que justice moo am lu mu doxalee woon. Mhm. te ba mu doxalee noonu. est-ce que nit ñi tal nañ liggéey. amul kenn ko tal liggéey ku nekk yaa ngi taloon si bopp ak foo ut laaxatoo wala loo sauver. loolu moo si am. Mhm. juin deux mille vingt le premier juin deux mille vingt trois. Mhm. mais le Sénégal était sans dessous sans dessus kenn liggéeyu mhm. tous les commerces fermés lépp lañ tëj banque tout ñëpp a tëj. mais est-ce que donc jàpp nga ne bu ñu réglé problème justice boobu noonu ba ba ku si nekk quand une décision de justice est rendue ku nekk mën si tënku. jàpp nga ne nañ tal leneen leneen. bu ñu waxee euh, diminution du prix des denrées de première nécessité. mais loolu y a un cadre juridique bi nga xam ne moo koy kii. tey jii nii. loolu si croix si si commerce xam nga commerce bokk na si piliers yi muy commerce pénal ak civil. si commerce est bu ñu tënk bu ñu waxul ne nii ak nii la ñuy def nii ak nii la ñu ko war defee. Mm-hmm. Ah, mm-hmm. rapport yooyu sur ces rapports juridiques la. Mm-hmm. est-ce que commerçant bi bu dee jënd marchandise am par exemple ñëw. ah ma jënd benn indi marchandise importé ko indi eh, jënd jëndee ko cent franc jaayee ko mille franc. mu xam ne loolu usure la ah. est-ce que bu ñu amul cadre juridique normatif boo xam ne mën nañu permettre ñu xam ne kii ak lii fii lañ war a yem nii la war a war a defee est-ce que loolu nañ si mën sotti loolu moo tax tey jii nii la justice am na benn chroniqueur un célèbre chroniqueur qui disait que il n'y a pas d'alternative à la justice man dama gëm ne il n'y a pas d'alternative à la justice justice tey jii nii mooy loo xam ne moom la ñu war a jiital bu ñu ko tegee ku si nekk xam lan moo la war après yeneen kii day gën a yomb yeneen euh, euh, pas yi ñuy jëm yi ñuy teg mhm. day yomb parce que ku nekk di nga xam lan moo la war ak fan nga war a jëm en fait mhm. donc tey jii pour man vraiment euh, si on règle ce de la justice mhm. bu ñu réformer te bi du kese Euh, rapport entre le justice la ju la justice et le justiciable du du loolu kese même dans au, sein de la justice ñoom y a des problèmes parce que aujourd'hui ma jox la benn exemple. nga dëkk Koungheul mbaa nga dëkk Makko Euh, nga am problème avec la justice normalement tey ji bu amee euh, bu ñu la téyee il doit y avoir la présence d'un avocat mais est-ce que zone yooyu noonu amul am nga possibilité am avocat bu mu xam ne bu amee interrogatoire mu mu xam ne na taxaw pour mun la assister. amul ce problème la amul ce problème effectivement. parce que am na ñu ne au delà de euh, avocat yi boo dépassé Kaolack pour nga gis avocat bu la représente c'est tout un problème. c'est tout un problème effectivement. c'est et en dehors les les boo ñëwee na parce que les magistrats instructeurs te disent que ne cent à huit cent dossiers magistrat bu tey jii quelqu'un qui est si un dossier est mis en ne il te mois sept mois huit mois ba un an pour mun a terminer instruction benn dossier alors que le gars est obligé de croupir en prison ça pose un autre problème hmm. donc yooyu yëpp dafa nekk ay gis nañ fi bu yàggul les les les greffiers greffe alors qu'on sait que le greffier il est au début et à la fin de toute la procédure judiciaire le greffier tey jii nii bu ñu bu ñu lay entendre au niveau du tribunal greffier baa ngi toog bu ñuy def euh, euh, procès bi greffier baa ngi toog même quand la décision de justice est rendue ah après yow njot fe nga bëgg a soxla décision de justice bi si greffier bi ngay dem boo soxla registre de commerce maa ngi soxla casier casier judiciaire boo ko soxla si greffier bi ngay dem mais est-ce que bu ñu réglu problème yooyu yëpp est-ce que jàpp nga ne Sénégal mën a développer. ah mais mais mais Senghor bul wax ne aussi peut-être il faut ngeen régler loolu rek pour Sénégal développer yéen ñoo ngi leen di jox réew mi yàggul. ngeen toog ngeen di xalaat justice alors que euh, les besoins sont ailleurs est-ce que mm-hmm. aussi nekkul loo xam ne des aussi am na ñoo xam ne tey la justice ne les peut du loolu moo leen intéresse leneen moo leen intéresse aussi bi ngeen mais est mais parce ça que, voilà mm-hmm. parce que tey boo justice en fait ñun peut-être bi ñu kii moom mooy partie pénale bi euh, procès yi ñuy tàmm di gis tout ça mais am na justice yoo xam ne ça rapport avec la la l'économie la taxawee porter seen seen i entreprise ci réew donc loolu yëpp je pense que c'est des oui seulement le pénal effectivement c'est pas seulement le sensationnel bi nga ne moom la chaque jour en fait quoi mhm. il y a le civil mhm. les rapports entre toi et moi c'est ça mhm. il y a le commercial c'est ça donc yooyu yëpp dafa bokk justice te yooyu yëpp il faut ñu régler problème yooyu yëpp tëg ko tënk stable maintenant ah dégg naa ñu wax naan noonu am na fi réforme amoon na fi ba léegi mais c'est pas appliqué maintenant je dis. mais c'est ça loolu la bëggoon laaj en mooy li ñu doon wax ni ça ça a été tenu il y six ans. amoon ay décisions yu fa tukkee. mais application après c'est resté dans les tiroirs donc dañuy les meilleurs textes. c'est ça mais y a problème d'applicabilité qui se pose. Mhm. man dama naan y problème de volonté politique qui se que tey je crois euh, Euh, dans un passé très récent bu doon euh, lii moo am euh, ñu jàpp ku mel ni kii si si dossiers yi mel nii mais instruction nga jëm. Mhm. mais du nekk flagrant délit donc y a une volonté politique. boo xam ne moo lal loolu lépp moom moo war a jiitu. et cette volonté la nu nous nous nu laa la matérialisons loolu moo tax tey jii nii ba jaxatee tey ñun ñëpp dans notre dans la plus grande majorité tout le monde s'attendait que le dossier soit mis en instruction mu dem ñu def ko mandat de dem au juge d'instruction mhm. mais bu nga xool sax même dans les journaux loolu la ñu wax naan Bah Diakhaté vers l'instruction mhm. journaux bi loolu la ñu doon wax kenn xaar si woon flagrant bi mhm. nest pas donc loolu dafa bokk ci réforme yoo xam ne nañ xam fan ak fan la ñuy taxaw en fait quoi a besoin de réconcilier la justice avec le peuple sénégalais tout a yéen ñi nga xam ne yéen nekk ci nguur gi jamono bi euh, est-ce que jàpp nga ne euh, comme li Kaja wax sànq li nga xam ne jot nañ ko waxtaanee ci wàllu justice taxul ba tey ñu appliqué ko est-ce que tey jàpp nga ne. problème bi mbiru idée la ay recommandations yi ñuy teg la wala application réellement ci li nga xam ne moo fi nekk parce que man dama am na ñoo xam ne dañoo jàpp ne décision yooyu recommandation yooyu amoon 2018 dañ ko war a appliquer. Mhm. bu ñu ko appliquer rek soxlu sax ñuy waxtaanaat am na ñoo xam ne par exemple j'ai le le l'ancien ministre de la justice Ismaïla Madior Fall moom déjà du fa du fa teew donte Aïssata Tall Sall nangu na nangu na di fa teew euh, lan ngeen lan ngeen fas yéene def par rapport à ces recommandations yu war a yu war a jógee foofu woon. alors damay d'abord revenir si euh, parce que tu as évoqué le nom de du professeur Ismaïla Madior Fall et de. waaw Aïssata Tall Sall. qui est na qui est une maman pour moi. waaw Aïssata Tall nee na dina dem. mais Ismaïla Madior nee na moom lu mu euh, njëkkoon tënk quoi. non Ismaïla Madior Fall. je que ñëpp xam nañu ooy nañu fi le tailleur de la République. Mm. Mm. parce que. Euh, étudiants yi xam ne jàngal na leen ku si nekk am tey jii rus nga taxaw ne Ismaïla Madior Fall moo ma jàngal parce que def na fi loo xam ne ah euh, situation bu nekk gi jëm na ko utal explication juridique ah ba moo ñu yóbbee li ñu nekkee woon euh, euh, en février et février passé mm-hmm. donc vraiment loolu peut-être loolu xam ah, kersa boobu moo tax moo la am moo tax rus na taxaw janoo ñi nga xam ne mun na leen mun na leen gëmloo leneen donc pour man loolu kese moo tax moo tax mu mu décliné invitation bi. Mm-hmm. alors maintenant pour revenir sur sur sur les sur ce qui c'est sur les textes qui ont été déjà produits. dama jàpp que ne. ça doit nous servir de base de travail. Mm-hmm. parce que c'était cela 2018 ak tey jii nii ça fait six ans. c'est ça et il y a beaucoup de choses qui sont passées. Mm-hmm. ma jox la benn exemple bu ndaw par extraordinaire euh, bu ñu waroon dem deuxième tour en mars deux mille vingt en mars deux mille vingt quatre. Mm-hmm. tombeek mandat président Macky Sall di jeex mais c'est un vide juridique. ce problème là s'est posé. oui te il n'est prévu nulle part dans notre corpus juridique. donc tey occasion la ñu waxtaanee ko. ñu xam ne même bu dee ñaanuñ yàlla bu subaa ginnaaw subaa situation boobu amoon posé waat. Mhm. mais personne ne sait. Mhm. donc li ñu war mooy partie de ces recommandations la de ces conclusions yàlla ñu adapté ko par rapport ak li xam ne situation fa lañ toll tey. Mhm. parce que la vie évolue société bi dafa évoluer ah on prend en compte d' autres considérations yoo xam ne am na am na fi et euh, euh, y a aussi l'histoire du pétrole l'histoire du gaz tout ça mm-hmm. yooyu yëpp bu ñu ko boolee xoolaat ko réfléchiraat si waxtaanaat si mm-hmm. ah tënk benn document boo xam ne mm-hmm. après comment on dit l'initiative des lois appartient au président de la république et au parlement après bu ñu paree jël ko tënkee jox ko président de la république ah mu saisir assemblée nationale sous forme de projet de loi li nga xam ne jàpp nañ que ne vraiment sénégalais yi moom lañ soxla ñu teg ko stable voté ko et après incha allah une bonne fois pour toutes qu'on de Euh, tripatouillage wala parle de vraiment loo xam ne dañu laalaat euh, li nga xam ne les lois et les règlements au Sénégal wala. Euh, fexe ba justice bi mën a tëddee. njaaxaanaay sànq dañu doon waxta waxtaanee ñu ngi ma koy leeralal tout Babacar Tambe du ñu koy remercier il est en train de l' émission ñoo ne il y a le commercial et justement. Euh, le civil voilà trois points yooyu moom moo am solo ci wàllu yoon ak yoonal donc c' est pas simplement juste li nga xam ne moom la ñuy faral di gis. maintenant ba tey ci wàllub réforme yi ñenn ñi jàpp nañu ne conseil supérieur de la magistrature bokk na ci ponk yoo xam ne xëñ na fas war nañ koo gën a mën a waxtaanee xool naka la def ba xam le président de la république dafa wax a continuer du siéger xool naka la ñuy def peut-être pour limiter ay prérogatives am bu fekkee dafay continuer du siéger ou euh, dans une autre mesure mu génn fa complètement mais magistrat yi seen liberté. alors euh, conseil supérieur de la magistrature euh, euh, du juge est mais si on prend en compte la la composition du conseil supérieur de la magistrature xam nga ne c'est le président de la république qui est le président du conseil c'est le ministre de la justice qui est le vice-président du conseil mm-hmm. et maintenant sur les magistrats du conseil douze sont nommés ou bien mm-hmm. sont choisis de droit par le président de la république est-ce que jàpp nga ne dans ce, dans cette situation là c'est la grande question oui c'est ça parce parce que conseil supérieur de la magistrature fa la ñuy waxtaanee de la carrière des magistrats. Mhm. Euh, parce que on te dit que ne euh, le magistrat euh, il est inamovible xam loolu la wax c'est ce qui est consacré. C'est ça. dans il est inamovible sauf en cas de nécessité de service ou bien en cas d'intérim. Mhm. donc malheureusement nécessité léegi c'est un tout intérim aussi c'est un fourre-tout maintenant. Mm. donc yooyu mooy point yoo xam ne il faut ñu waxtaanee ko ah a dans le conseil supérieur de la magistrature maintenant beneen problème mooy aussi ça il faut ñu éviter am euh, un pouvoir de juge. ok donc c'est, il faut vraiment qu'on essaie de trouver le juste, milieu entre li nga xam ne moom mooy consacré moom moy tax tey jii nii les magistrats vont être indépendants. Mm -hmm. parce que maintenant d'accord déjà en plus que jàpp naa ne indépendance c'est d'abord question de de de personne et de personnalité oui. donc loolu maintenant mais dans les ñu consacrer cette indépendance pour pouvoir permettre aux vraiment d'être indépendant xam nga tey jii ni bu ñu la bu ñu la nomee fii nga xam ne lii ak lii ak lii ma sam bu ñu defee de sorte que sont les juges même ñoom ñooy euh, dans la gestion de la carrière mais de leur carrière mhm. ñoom ñoo si les premiers impliqués su je crois que problème bëri di dina réglé wu mais bu dee yow da xalaat da jàpp que ne man mi tey pour ma avancer ou bien pour ma mun a am possibilité am benn poste bu juteux mhm. il faut que par exemple que je sois sous le sous le coup euh, sous le coup wala je sais pas comment expliquer euh, may def ni ko exécutif bi buggee ça pose problème. ok donc loolu loolu. man man dafa am dafa am leneen sax au-delà de de de de de du dialogue euh, choix bi ñu def par rapport ak ñi nga xam ne ñoo war teew tey ci dialogue bi. Mhm. j'ai j'ai par exemple am nay anciens détenus yu ñu daal di tànn mais anciens détenus yu bari si ñoom dañoo am corrélation politique. Mhm. maanaam ñu bëri si ñoom. dañoo bokk dañ soit bu ñu bokkul Pastef dañoo am benn euh, sympathie ci Ousmane Sonko choix boobu aussi ça pose problème gis nga euh, réew dafa am nu muy doxee Senghor euh, c'est vrai que dara du du du lu bees fii ci wàllu ci wàllu justice lu ñuy def tey foofu ca jam ñaaju man en fait contre par rapport ak wax naa ko fi démb pour man ñëpp a war a dem teewee li nga xam ne mooy waxtaan bi bu ñuy waxtaan ci wàllu justice ñëpp war nañ dem mais réew aussi soo comme li nga wax sànq su fekkee Euh, jàmm euh, justice amul jàmm du mën a am c'est vrai mais est-ce que tey sóoraale nañu li nga xam ne moo fi xew Ousmane Sonko aujourd'hui premier ministre bu demee Bassirou Diomaye fay nekk président de la République man bu ñu waxee dañuy waxtaanee wàllu justice du ma bett. Mm. parce que damay jàpp ni juste les dossiers yi nga xam ne moom la ñu moom lu moo nekkoon ci ndodd Ousmane Sonko ak Ousmane Sonko position bu mu amoon ci wàllu justice fii ci Sénégal kaddu yu mu doon yëkkati jëmale ko ci ay juge est-ce que tey jii ne li nga xam ne moom la ñu teg. ba ñu yegg si fii yeneen sénégalais yi ëllëg du ñu jóg ñu ne ko yaa ko fi njëkk def am na loo xam ne il faut ñu waxtaanee toog na fi euh, yëkkati ay kàddu jëmale ko ci ay juge toog na fi euh, nee na du dem wuyu ji justice justice boobu tey moom la ñu war a waxtaanee Ousmane Sonko mooy le premier ministre au de ça y a des jeunes dans ce pays man côté boobu dama koy déplorer parce que ñu bëri si euh, ndaw yi dama leen xam bi ñu génnee prison nekk nañu prison aujourd'hui nos prisons n'accompagnent pas les jeunes dangay ngay gis ndaw boo xam ne dañ lay jàpp nga dugg prison boo génnee bu fekkoon da nga yoroon sa liggéey da ngay ñàkk sa liggéey réinsertion donc réinsertion boobu aussi ça pose problème je pense que beaucoup de jeunes aujourd'hui ñu bokkoon ci Pastef sax ils ont eu ce problème là après bu ñu ñëwaatee je me demande même comment gouvernement là doit faire pour accompagner ces jeunes là dialogue bu ñuy woote bu mu nekk rek ay dialogue mag magum jëmm parce que man je pense que aujourd'hui ndaw yi Sénégal dañ leen war a boole ci dialogue ndaw yi Sénégal dañoo bokk ci réew mi te ndaw yi Sénégal waruñu leen fàtte ndax prison suñu prison yi dafa xat xataay boo xam ne tey ñuy tàncaloo noonu c'est pas nekkul ci loo xam ne aussi lu rafet la ci image. Mm. nit dina def njombe dinañ ko jàpp dugal ko prison mais bu duggee prison cela ne veut pas dire que dafa war a dund loo xam ne lu metti la damay gis euh, des fois benn benn boy bi ma xam bi nekk passé buy dugal ay vidéo ci réseaux sociaux yi mais instant bi nii comme dafa tàng moom nekkoon na prison dafay dafay joxe benn message par rapport ak li xew prison instant bi ak tàngoor bi fa nekk donc ñoom xam nañu période bu nekk li ñuy dund prison donc pap est-ce que aujourd'hui jàpp nga ne lépp li nga xam ne yéen ñi nekkoon ci opposition bi démb ŋàññ doon euh, wax lii justice tey ngeen toog au pouvoir bëgg defaraat justice boobu est-ce que tey jii nii justice boobu narul dem ba nar a nekk benn épine ci seen tànk. alors d'abord pour te rassurer. Euh, par rapport ak euh, relation entre justice et les mineurs. parce que si thématique yi ñuy def yi ñuy war a développer si si si dialogue bi. Mhm. am na thématique boo xam ne sa concerne spécialement rapport boobu en fait quoi. parce que dañoo jàpp que tey jii nii xale yi prison du seen place une fois que ñoom ñu nekk prison am na bu politique boo xam ne war nañ ko mënee. Mhm. bu ñu génnee pour pour une réinsertion vraiment dans la vie active. donc y' a une thématique vraiment bi nga xam ne si si di spécialement ak relation boobu noonu. deuxièmement boo jëlee programme de tous les candidats yi nekkoon en deux mille vingt quatre. Mhm. mars mars deux mille vingt quatre élection yi. candidats yëpp boo jëlee seen programme ku si nekk wax na ne il faut réformer la justice. Mm. candidats yëpp. waaw ah. yi boo xoolee seen programme mm. ku si nekk. wax nga ne il faut réformer la justice maintenant comment réformer la justice peut-être que si loolu la ñuy diffé loolu moo ñu différencier mais tous ont la réforme et de la justice loo xam ne dafa nekk loo xam ne tey jii sénégalais ñëpp a tënk si loolu ñëpp a d'accord ne il la justice sénégalaise mm. donc nekk loo xam ne c'est propre à loo xam ne c'est propre à la coalition Diomaye président maintenant yàlla def na coalition moo nekk si nguur tu sais mënoon nañ wax ne on a été on a été élu sur la base d'un programme parce que proposé nañ programme ne ñu lii lañ bëgg Sénégalais yi lii lañ proposé Sénégalais voté ñu ñu ñëw ah ne comme ñun ñun lañ fal te lii lañ proposition yi leen defoon sur cette base ñun duñ diisoo ak kenn comme fal nañu si loolu nu ñu dañuy ñëw ci jéem a appliquer propos yi xam ne moo leen proposé woon xam nga loolu moo ñu gënoon yomb mais loolu defuñ ko dañ ne noonu il faut ñu ñëw diisoo ko waxtaanee ko buñ si waxtaanee ba ku si nekk indi sa xalaat et indi sa xalaat boobu noonu boobu noonu. nekk loo xam ne dañuy jàpp que ne comme j'ai dit tout à l'heure la justice elle est au nom du peuple donc tout le peuple est concerné par cette la là malheureusement man tey jii nii mais jàpp naa ne kenn gënumaa légitime ah pour participer si dialogue boobu noonu. Mm. kenn gënumaa li ma jàpp mooy kenn gënumaa dans le même droit que keneen ak keneen demande carton d'invitation pour dama jàpp ne nous sommes 18 millions de Sénégalais. te 18 millions Sénégal yëpp ñëpp mënuñ participer si dialogue boobu noonu donc il faut que ñu def échantillon échantillon boobu moo ñuy permettre ñu jël si corps d' bu nekk secteur bu nekk secteur bu nekk corps de métier bu nekk ñi xam ne ñoo ŋànk justice bi ah muy la justice et les justiciables aussi ñëpp ñu jël leen boole leen si ñu waxtaanee ko et par rapport aux mais pour moi y' rien de plus normal ya a rien de plus essentiel. Mm-hmm. détenus ex détenus ñu boole leen si dialogue bi. mais choix choix bi mooy poser problème parce que bu fekkee da tànn ñi nga xam ne peut-être jàpp ne Pastef lañ bokkoon dañ leen tëjoon ko ñoom ñoo war a dem teewee tey ci dialogue bi alors ngeen xam ne am na fi jàpp nañ fi ñoo xam ne ils étaient pas de Pastef mais parce que da romb dem ñu jàpp la mbaa ñu ñëw gis sa téléphone gis sa photo Ousmane Sonko est-ce que par exemple est-ce que par exemple parce que yow sa téléphone am na ça veut réellement dire que yow tu es de Pastef yow sa téléphone tey jii su ma ko bëggoon naa si photo Ousmane Sonko et pourtant tu n'es pas de Pastef. ah yaa ngi may yaa ngi may tuumal nag de. non non non je veux dire je veux ah, dire. am photo nit si sa téléphone. Ah. ne veut pas dire que tu le supportes wala moom ngay jàppale. Hmm. il faut qu'on d'accord soit d'accord sur ça et gis nañu fi ne ñoo xam ne photo Ousmane Sonko kese lañu fekk seen téléphone jàpp leen pour dire que vous êtes de Pastef. Hmm. loolu benn la deuxièmement si composition toujours si composition boobu noonu ah euh, dama ne. les ex-détenus ñi xam ne ñoo dund loolu dund si xam xam li xaw si milieu carcéral bi parce que euh, assise bi ak réforme yi mhm. ça prend en compte aussi le sur surpeuplement des prisons parce que tey jii nii les prisons sont super extrêmement extrêmement peuplées oui. xam nga donc il faut ñu waxtaanee si loolu tamit te loolu pour moi jàpp naa ñu ak les conditions les conditions de vie des des des prisonniers si yan conditions la dund mais loolu pour nga mën ak ñi nga ne ñoom ñoo koy dund wala ñoo ko mës a dund. Mhm. ki xam ne doonul prison xamul lu nekk biir prison boo ñëwee di ko di ko ne lii ak lii ak lii war a defee ne mais mënu ko comprendre parce que xamu ko et de quelque bord que que tu puisses être nag que tu sois du PASTEF que tu sois de l'APR que tu sois du parti socialiste que tu sois du PDS képp ku si xam ne bokk nga ne mus nga un ancien détenu la war nañ la mun a oo nga ñëw bokk si loolu moo si am mm-hmm. donc pour man c' euh, pour man loolu loolu détail la sax en fait quoi parce que comme li ma waxee la man mii nii jàpp naa tey man Ibrahima Senghor kenn gënumaa légitime pour demander un une un carton d' invitation pour dem si si dialogue bi parce que peut être man am naa nu ma xalaatee justice bi ah mhm. peut être bu ñu ma invité woon mun naa jël parole ne man nii ak nii laa ko xalaatee peut être sama xalaat mun na nekk mun na nekk xalaat boo xam ne moom la Sénégal yu bëri am tamit mais amu nu ko waxee mais comme malheureusement on ne peut pas inviter tout d' euh, euh, ailleurs la plateforme qu'on a ouvert loolu moo ko indi wala moo ko waral mhm. moo ñi nga xam ne amuñ accès moo xam ne ñi nga xam ne am carton d'invitation ou xam ne mënuñ leen invité ñu dem si euh, ñu dem jam ñaajo la plateforme pour dee am nañ ay propositions yoo xam ne mun nañ mun nañu ko ñu dugal proposition yooyu noonu et puis on les prendra en compte. mais dégg ngeen di def dialogue euh, invité waa Benno Bokk Yaakaar euh, ignorer royalement ñi nga xam ne ñooy waa coalition Diomaye Président. mais mooy li a la wax rek on ne peut tout le monde. waaw mais ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon démb ngeen ngañ wàllu justice. non dafa ngeen jàpp ne ñooñu ñu tey di invité waat. non dama ne tey dialogue bi nga xam ne moo nekkoon ministre de la justice mu nga fa mu dina fa nekk. Ismaïla Madior sax bañ na nee na bon xam naa ne décliné na mais euh, ne tey ñoom ngeen jàppoon ne ñoom ñoo Euh, peut-être xarab justice bi ñoom ñoo jaaralul justice bi yoon ñooñu ngeen fas yéene tey yóbbu fii nga xam ne mooy jam ñaajo ngir ñu waxtaanee justice. xam nga la coalition est-ce que amul paradoxe Senghor la président. Hmm. ça fait cent partis au mouvement au mais boo invité coalition Diomaye président kese mu jeex. salle bi fees. salle bi fees <laughs> pour lan mais c'est pas la coalition Diomaye président kese mooy mooy Sénégal Sénégal du coalition Diomaye président kese. Sénégal du APR kese Sénégal du Benno Bokk Yaakaar kese et sur pour revenir sur le, le choix de Me Aïssata Sall Me Aïssata Sall en plus d'avoir été ministre de la justice et une avocate émérite loolu au moins nañ ko ko nangul et une avocate reconnue et respectée par tout le monde mais rien que pour ça son expérience son vécu ak li nga xam ne pratiqué na ko en tant que ministre de la de la justice mais yoon la ñu ñëw invité ko mu ñëw waxtaan moom wax ne ak moom naka la ko gisee ñi nga xam ne ñooy waa APR wala benn bokk yaa nekkoon déem si nguur gi am nuñ doxalee ak justice peut-être que ñoom dañu jàpp ne justice noonu la war a doxee mais ñoo waxtaan nañ ko ñoom bu ñu waxee ñoom ni ko xalaatee ñi nga xam ne ñeneen beneen boor bokk indi wax ni ñu ko xalaatee mais ñu boole mais on ne peut pas inviter tout toute la coalition Diomaye président mënul nekk c'est tamit il faut tamit qu'on soit conséquent avec nous-mêmes conséquent mooy lan mooy échantillon la ñuy wax on essaie de faire de sorte que tout la population sénégalaise soit représentée toutes les couches de la de la de la population soient représentées. et te pour loolu mun a am mais dañuy te xam nga comme fa ñuy fexe ku tànn di nga am koo bàyyi. Mm-hmm. ku tànn di am koo bàyyi. tey jii nii 2STV yi yéen lañ tànn pour le matin ngeen di animer émission émission mais am na ñeneen ñu ñu bàyyi. am ngoon si am na ñeneen ñu aminé yéen yéen du ngeen andi kii mais loolu moo si am. donc tout temps on ne on ne peut pas faire l'unanimité mais deuxièmement dama jàpp que ne comme dafa nekk loo dañ koy waxtaanee et c'est pas quelque chose qui est fermé parce que en de ça il y a la plateforme qui est là mun na permettre ñi xam ne amuñ accès à la salle ou bien amuñ accès yi foofu noonu ñu jaar ci yi pour wax seen wax seen kii wax seen euh, seen xalaat seen bëgg-bëgg ak seen seen mébét ci justice bi je crois que c'est c'est très simple. Ousmane Sonko nu mu dénigrer à l'époque est-ce que aussi loolu naru am euh, hmm. xam nga da nga hmm. ñaar tànk la boo xoolee euh, emblème kii sax balance la en fait quoi balance et on parle du respect des droits ah des citoyens euh, on parle de respect et de sauvegarde du droit des citoyens loolu moo si am mais Ousmane Sonko depuis deux mille vingt et un ba léegi amul benn boo xam ne la justice a respecté ses droits et bi si mujj quand il a quand il s'est agi de de de de de rendre une décision au niveau de Ziguinchor du tribunal de de de bi nga xam ne nañ delloo Ousmane Sonko si liste électorale ça n'a pas été fait. Mm. et pourtant c'est décision de justice. mais donc loolu noo ko mën a tuddee Ousmane Sonko c'est lui qui a été victime comme ni nga fay di wax naan y boo xam ne il a été victime comme ni Ousmane Sonko mel sur ces trois à quatre dernières années là. donc loolu moo si am Ousmane Sonko quand il s'est attaqué te il a toujours été clair il n'a pas dit que magistrat Sénégal yi baaxul il n'a jamais di ça. il n'a jamais dit ça mais daf ne am na ci magistrat yoo xam ne il son sous la coupe de l'exécutif il son la pour exécuter des décisions wala li xam ne moom la exécutif bi bëgg te ñooñu du leen faale du leen uy du nangu déglu leen Mhm. justement en parlant ça. de cette influence là nee jàpp nañ c'est le moment quand même euh, de couper la relation qu'il y a entre le ministre de la justice le procureur et le juge d'instruction ndax xëy na loolu rek buñ ko buñ ko cordon ombilical ba buñ ko daggee rek xëñ na dina am mbir yu bëri yoo xam ne dina leer ci wàllu yoon waaw mais xam nga euh, loolu exemple boo si ba si jox rek mooy parce que dañuy jàpp que ne le procureur de la république est trop puissant mhm. man jàpp naa y a rien de plus humiliant et de dégradant euh, l'histoire de retours de parquet mmh. retour de parquet mais y a rien de plus humiliant et de plus dégradant loolu okay. et nous on a proposé déjà que même pour les pour les pour les à vue mais au lieu de 48 heures mu nekk 24 heures donc ça fait 48 heures maximum oui. au lieu de 96 heures yi ñu doon dem loolu c'est une avancée mm. parce que problème mooy tey jii nii le procureur de la République mun na def nit mandat de dépôt maa mu mu rek mu pour mandat de dépôt même le juge tey jii nii bi nga xam ne mun na jël une décision contraire à quand le procureur je veux dire quand il prend une décision si yenn ou bien bu bu kii yenn articles yi de cinquante cinq à cent par exemple mais le juge est lié mandat de nga jëm loolu il faut ñu changer ko. oui ah te bu ma jox si exemple l'histoire de Aliou Sané le le coordonnateur du mouvement Y'en a bi ñu ko jàppee ah le procureur il a été contre sa mise en liberté provisoire et pourtant le juge avait donné son accord. mu dem ñu dem dem ba cassation. Mhm. et la euh, la cour de cassation topp lu lu procureur parce que nee na ko euh, tu es tenu parce que en tenant compte des articles yi nga xam ne moom la procureur euh, ciblé. Mhm. tu es tenu de requérir le mandat de dépôt donc il faut que Aliou en prison mais loolu il faut mu loolu c'est pas normal parce que loolu c'est dégradant en fait quoi il faut que parce que tu sais justice l'emprisonnement c'est pas le principe c'est l'exception. ok emprisonnement c'est pas la principe c'est l'exception te loolu moo tax aussi ñun ñu ne tey jii nii il faut que ñu yeneen alternative à l'emprisonnement yeneen alternative yi doon la mais par exemple le renforcement des des sanctions pécuniaires oui xam nga sénégalais dafa fonk poosam torop ah tey nii boo defee benn infraction foo waroon fay cent mille francs ñu fay la fa un million mais bu soobee ba nga ko defaat di nga xalaat du xalaat du baax a baax yooyu c'est des alternatives am na yeneen alternative mais da ngay seetaan même si film yi da ngay par exemple gis que ne ñu ne des travaux d' intérêt général. Mhm. gis ay prisonniers ah ñëw benn prisonnier parce que boo waroon nañu la tëj affaire yooyu noonu nga dem euh, si benn école wala nga dem euh, def ay travaux si mbedd bi affaire yooyu noonu. loolu daan nañu ko gis. et puis si film yi xam nga loolu nit bu am kersa nit bu am kersa. Euh, ñu gis la nga sol seen tenue yu orange wala je sais pas quelle mhm. couleur. nekk si ma mbedd bi pam di bale affaire yooyu xam nga am na kersa bi muy def si yow. mais bu subaa foofu boo fa jógee balaa ngaa defar boo xalaatee que ne ah man démb ko defoon naa lii maa nit ñi di ma romb di mbedd di ma xool gis may nettoyer mbaa ma am nuñ ma gisee donc dinaa. am na leen yoo xam ne tey jii buñ buñ ko buñ ko appliqué mais on aura on aura plus ce surpeuplement dans les prisons du Sénégal. Mhm. donc ñun te loolu lañ proposé. loolu ay réformes yoo xam ne on a on mais il faut qu'on discute de ça. voilà bu ñu ko discuter lan moo si gën a baax lan moo si gën a abord. à nos mœurs à nos coutumes à notre manière de vivre ñu parce que loolu tamit c'est important bu ñu ko kiiyee ñu appliqué ko et puis su boobaa tout tranquille parce que nañu xam ne justice tëddee na njaaxaan njaaxaanaay nañu xam ne cette justice là comme on le dit elle est rendue au nom du peuple sénégalais et le peuple sénégalais va s'y retrouver et le peuple sénégalais dina juwawaat ak justice am. on espère bien. affaire yi euh, doy na waar daal mais xam nga xam nga fu ñu jëm nii bu fekkee da ngeen bëgg ñu dem ci li ñuy wax euh, une république des juges. dina xaw a doy war trop. est-ce que waxuñu loolu de. ah non non non j'ai dit non de de de voilà j'ai dit que il faut qu'on essaie de trouver le juste milieu. entre euh, l'indépendance des juges et éviter une république des juges parce que éviter une république des juges mais su boobaa mooy gën a compliqué. Mm. parce que yéen et même les juges. même les juges ñoom seen bopp ils ne veulent pas de ça. Mm. les juges. ils ne veulent pas d'une république des juges donc kooku il faut il faut mu leer donc ça c'est dafa nekk situation boo xam ne personne n'en veut mm. et personne ne le demande waaw donc vraiment. mais est parce que parce que yéen yéen a doon doon wax ne euh, mag comme Macky Sall lu mu ko doon waxee yenn dossiers yi maa si doon teg sama conco bëgguma mu mu demee neneen ak neneen lu ci mel ne mbiri Adji Sarr Ousmane Sonko gis nañ ko fi euh, ba amnistie sax moo ci mujj am xëy na Macky Sall à la limite la fin balaa muy génn réew mi euh, juboon ak Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye ba amnistie daal di am kon tout toujours dañuy gis ne am na loo xam ne moom exécutif bi ci pouvoir yi dina ci am wàllam est-ce que tey yéen li ngeen nar def nii ba daal di indépendant indépendant est-ce que narul am conséquence ci seen doxalin fii ci réew mi. xam nga dafa am leen lu am. Hmm. même toutes les guerres. ah. waaw se euh, se résolvent autour d'une table. guerre bu mënta am ak lu mënta am il faut autour autour d'une table waxtaanee ko donc dialogue moom ah à la kulli il faut mu am loolu benn la. Mhm. naa pour revenir sur l'histoire de de l'amnistie mais l'amnistie président moo proposé moo def proposition de loi boobu noonu au niveau de l'Assemblée nationale. mais l'Assemblée nationale était dans son droit pour voter ou ne pas voter cette loi d'amnistie-là donc faut pas dire que ne non non non no non. président est-ce que yenn dossier yi Bassirou naru si teg coñcam moom tamit. comme Macky Sall nu mu ko doon defee. xam nga Macky moo fi taxaw carrément wax ne ah j'ai mis le coude sur certains dossiers. ce que nous trouvons scandaleux scandaleux et président de la République tey jii nii. je crois bu bëggoon teg ay ay ay ay ay coñtom si si si si dossiers yi maa tëdd si dossiers yi du demander au cours de au corps de contrôle ñu publier tous les rapports depuis deux mille dix ba léegi je crois que ça c'était la première chose boo xam ne def na ko il a demandé à tout que à ce que tous les corps xam ne def nañ ko et il a demandé aussi ak dorénavant que les rapports périodicité bi nga xam ne moo war pour publier ces rapports la ñu def ko donc je crois que on est assez clair sur ça mm. donc vraiment amuñ problème boobu noonu dañuy jàpp ne parce que li li am ba des mooy. ji nga dëkk bu ñu ko bëggee doxal. ah il faut que yoon di def liggéey il faut que ñi nga xam ne yow ñëw yow lañ dénk alalu réew mi yow lañ dénk jox la xa koppar réew mi mais nga doxalee ko si ni nga ko waree te bañ a jaawale alalu réew mi ak sa poche. c'est que pour man la reddition des comptes pour man c'est c'est quelque boo xam ne c'est terre à terre et c'est tout à fait normal dans une république sérieuse est-ce que da ngeen ci dem ba mu jeex mais ba mu jeex tàkk ba mu jeex tàkk parce que nag rupture lañ oote te rupture boobu ñu oote xam nga fa lay commencer mooy ku si nekk li liñ la dénk nga wax ñi noo ko amee noo ko yére noo ko téye pour bu subaa ginnaaw suba parce que xam nga am man tey ji nii bu ñu ma dénkee benn affaire mais su ma fi nekkatul ñaan naa yàlla samay doom bu ñu génnee si mbedd bi mais ñu mën a sigi xool nit ñi te xam nga loolu naka lay amee ñooy leen seen bàyyikat lim liñ ko dénkoon téye na ko nu mu gën a rafetee parce que tamit man maa ngi utal woy bu rafet samay doom maa ngi utal woy bu rafet samay njaboot donc loolu moo war bépp sénégalais loolu moo war képp koo xam ne am na lu ñu la dénk nga téye ko de la façon la plus nu mu gën a sellee pour vraiment parce que tamit alal bi yow kenn moomoo ko kii kenn moom ñun ne ñun ñëpp ñoo ko bokk dénkaane na bu ñu la loo xam ne ñëpp ñoo ko bokk da nga ko war a noo xam ne bu subaa bu ñu la ko laajee nga delloo ko ah te kenn du am lu mu siy wax donc cette obligation là elle laa te ñun dinañ si dem ba mu jeex tàkk parce que képp koo xam dénk nañ la alal dinañ xool dinañ càmbar xool noo ko téye woon te bu si waree daan bu si waree am incha allah <coughs> comme on a dit la justice fera son travail <coughs> maintenant la justice def travail ça ne veut pas dire que fait une chasse aux sorcières on n'a jamais dit ça dans le dans la dans le programme Diomaye président loolu nag la ñuy éviter parce que mbirum Bah Diakhaté ak imam ak imam bi dafa mel ne ah c'est pas la même chose dans le programme Diomaye président à la page on a dit reddition des comptes et renforcement des corps de contrôle renforcement des corps de contrôle c'est ça qu'on a dit mais chasse aux sorcières amul njëriñ parce que boo xoolee dafay fàttali wax on a été élu pour cinq ans euh, Macky Sall premier mandat c'était sept ans sur yëpp ah, Euh, kii jox nañ kii xaalis lépp lu ñu ko kiyee mooy euh, euh, nu ñu woon kii bien présumé mal acquis. Mm-hmm. loolu lañ kii woon Karim Wade Afrique te fan la mujjee Karim Wade kese sur pendant trois ans loolu la mu génn ñun amuñ jot boobu noonu on n'a pas ce temps là dañuy yónni yàkkamti ñu te ku ñu yónni ba yàkkamti ñu nag vraiment tal nga leneen. lu mm-hmm. di gëstoog di delluwaat ginnaaw. mais est-ce que xool ngeen sénégalais yi lu ñu soxla. comme Senghor sénégalais est-ce que loolu la ñu soxla. est mm. de droit. un pays où de justice bu ñu amee lool et par boo jëlee l'exemple de des des mesures qui ont été prises sur le littoral et autres mm-hmm. mais lool yëpp ça entre dedans parce que tey jii nii euh, on parle de réduction des denrées ou du coût des denrées de première nécessité mm-hmm. mais euh, le littoral et tout ça là avec avec la pêche mais Sénégal ñëpp neen nañ jën amatul yéen ñuy jigéen bu ngeen demee marché man xaw ma kañ laa gëj a lekk yaabooy parce que yaabooy sax fi mu ñun baadoolo yi mootuñ ko lekk parce que amul amul amatuñ njëgam parce que gisatuñ ko donc la pêche bu ñu delluwaat bu ñu si yoon secteur de la pêche bu ñu delloo bu ñu ko dellu les acteurs de la pêche nappkat yi ñun delloo leen ko d'abord sa règle le problème euh, euh, Barça wala Barsaq parce que nit ñi dootuñu demati kii parce que au moins ñi taxaw ñu ne géej am nañ nañ am luñ suturloo pour. mais mais mais li Sénégalais di xaar ba tey. Euh, ba tey waaw mais loolu am na impact waaw wala déet si si si. non non non jën non loolu moom loolu moom. xam nga nag xam nga xam nga non non non xam nga non bu njëkk bu njëkk foo doon jëlee sax ay trop ci communication. je vois dañuy partager gis nga démb sax boo gisee boo gisee euh, euh, waa directeur kudd boobu am problème ak intersyndical yi c'est dû à ça il communique des fois d'une manière boo xam ne très intelligente dañuy instant bi da ngay gis sax ñuy communiquer de telle sorte comme si que jën dafa am. Euh, comme si que bateau am na am na benn journal bu d'accord ak yow li nga wax ci wàllu communication parce que jàpp na ne am na ay ministres yoo xam ne dañoo war a xoolaat seen. communication non non mais non mais dafa lànk. est-ce dafa lànk y a y a une chose sur laquelle je suis d'accord. oui xam nga il faut nga nangu il faut nga nangu ne ay nit yu doog a ñëw ah yu na Diomaye moom bëriwul wax bi ñu ci non bi ñu ci première fois bi bi bi ko falee ak bi ñu ci am na différence mm-hmm. am na ñuy wax loolu mais il faut ñu nangul ko ça on n'a pas de problème par rapport à ça évolution dafay on ne pas ministre on ne n'est pas directeur général mm-hmm. yaa ngi dégg donc au fur et à ngay dem xam nga nga maintenant tu as des prédispositions tu as des prédispositions ba pare nga teg si xam ne loo xam ne jàng nga ko moo lay permettre bu ñu la joxee dénk benn affaire nga mën a avancer et pour revenir sur sur le plan de la communication bi bi mu doon wax mais dama ne jën bu amee mais am na un impact fort positif sur le pain de la ménagère parce que foo doon jëndee saamu saamu jën 2000 francs nga ko jëndee 1000 francs beneen 1000 francs la nga ko dugal feneen. très bien loolu la ñu dëgg. donc euh, ci euh, procès bi en tout cas mu servir ñu de prétexte bu Bah Diakhaté ak Imam Ndao ñenn ñi jàpp nañ ni yenn loi liberticide yi dañ ko war a xoolaat voire même supprimer ko lu ci mel ni offense chef de l'État wala offense magistrat. ndax jàpp nga ni c'est man dama jàpp ne c'est vrai que certaines lois liberticides dañ si dañ si war a dellusiwaat mais man d'accord ma pour ñu supprimer offense au chef de l'État ok parce que xam li tax ma lu tax kilifa kilifa la nañu wax te dëgg mhm. le président de la République c'est la première institution de ce c'est la plus haute mhm. on ne peut pas se di xëy suba ba ngoon di saaga di de taxer de n'importe quoi le président de la République loolu il faut mu leer maintenant euh, euh, Sénégal tamit il faut ñu def distinguo entre euh, euh, j'ai bien aimé le président Bassirou Diomaye Faye quand il la il a été élu président de la République il a automatiquement démissionné de son poste de secrétaire général du PASTEF. ñoo ko waxee woon parce que ça évite nit ñi def confusion. entre le chef de l'État et l'homme politique. ok problème boobu lañu amoon ak Macky Sall doo xam kañ la président de la République doo xam kañ la chef de parti mais bu ñu amee bu ñu defee différence boobu noonu. nañ xam exactement on parle du président de la république et quand on parle du du de, l'homme politique. man dama jàpp ne en tant que président de la république xam ne c'est la première institution du Sénégal ah kenn warul am sañ-sañ di ko fragiliser kenn waru am sañ-sañ di yëkkati baat bu ñaaw mbaa wax bu ñaaw di ko teg et maintenant d'ailleurs par extrapolation nit kenn warul am droit di jël wax bu ñaaw wala saaga wala. lu ñaaw di ko jël di ko teg si der jàmb ak ku munta doon ak foo munta nekk. d'accord loolu mooy li am. très bien maintenant conseil constitutionnel est-ce que waruñu woon régler problème boobu parce que ñëw nañ fi lu jëm ci wàllub guerre et ça c'est extrêmement grave. xam nga na balaa ñoo xam nga ñun. après juste on a proposé que à la place du conseil constitutionnel. Mhm. ñu am cour constitutionnel. ok et même dans le dans le système de de nomination des juges constitutionnels on a demandé à que mu nekk xam nga on a proposé mu nekk neuf membres trois membres. proposé par le président de l'Assemblée nationale trois membres proposés par l'opposition parlementaire et trois membres proposés par proposés par euh, par la société civile. xam nga bu ñu defee au moins nañu permettre ñu am une une une une constitutionnelle boo xam ne euh, indépendante xam ne dina dina nekk à équidistance entre tout les chapelles politiques. Mhm. et su boobaa dootuñu amati problème pour wax naan lii ma li maintenant pour revenir sur l'histoire du conseil constitutionnel bi xam ne moo ñu waraloon moo ñu ñu reporter élection yi. Mm. il est important il est vraiment important que cette affaire-là qu'elle soit tirée au clair ah parce que même bu dul affaire Sénégal mais pour l'honneur de ces juges-là qui a été bafoué parce que ces juges-là dañu leen taqal loo xam ne c'est extraordinaire et même pour l'intérêt de Amadou Ba Amadou Ba il a été jugé il a été taxé de corrupteur mais pour man war na def tout pour ñu raxas deram war a def tout pour ñu setal deram mhm. bu dee moo def ñu xam bu dee deful mu xam et su boobaa ñi xam ne ñooñu tuumalaan ba mu far ba mu jar jural ñu ñu am ay doom yu si faatu mhm. si période boobu noonu mais ñu xam ne lii warul nul très bien Abdoulaye Mal la dernière question waaw bon euh, je pense que en fait euh, man dama koy laaj rek par rapport ak attentes yi ce que am nga yaakaar que dialogue bi tey bi war a am foofu ca jam ñaaju ñu ci génnee Euh, dina am quand même euh, vraiment dinañ génn ci air bi nga xam ne moom lañ nekkoon. mais euh, du yaakaar sax. mais j'en suis persuadé. dama jàpp ne te dama gëm ne. bu ñu jógee ci dialogue bi nii avec les décisions qui font qui vont sortir de sa dialogue la ah on aura une justice réconciliée avec son peuple on aura une justice boo xam ne le Sénégalais lambda dina am confiance en cette justice là. te su boobaa on sera la là à parler de justice boo xam ne day nekk bras armé de l'exécutif pour régler le, le, le problème de, de, certains opposants parce que loolu moo fi doon am démb ak barki démb mm-hmm. on a vu l'affaire Khalifa Sall on a vu l'affaire Karim Wade et même en allant plus loin on a vu aussi l'affaire Mamadou Dia donc jàpp nañ ne bu ñu regle problème yii nii incha allahu rabbi bu ñu si génnee avec les décisions fortes qui qui sortiront de, de ces assises là on aura une justice indépendante on aura une justice réconciliée te su boobaa on ne sera plus là à parler de waa justice bi nii maintenant euh, aucune aucune œuvre n'est parfaite même constitution française bi nga xam ne lu si bëri moom moo ñu moom moo ñu moo ñu inspiré il y a des choses à revoir et après avec l'évolution de la société il y aura ay ay ay ay révisions yu ñu mais ce seront des choses yoo xam ne qui seront minimes doo xam ne du jarti vraiment ñuy xarab justice sénégalaise. très bien Papa Ibrahima Senghor coalition Diomaye président moom moo nekkoon suñu gan tey ci fajar gi ñu bàyyi la très rapidement nga tàggatoo. bon li may tàggatoo mooy d'abord faire un coucou à ah fii xam ne fa dëkk muy Kaolack ah donc j'aurais bien mais bu ñu wax malheureusement temps bi gàtt na. sur sur sur sur Kaolack mais incha allah on aura l'occasion beneen yoon incha allah revenir si si si si si Kaolack donc di leen remercier bu baax a baax a baax di wax sénégalais yi rek euh, am naa yaakaar ne comme ñoo ñu wóolu ba dénk ñi incha allah ñu ngi leen di promettre wax leen ne carrément liñ séntu. bu soobee yàlla. incha allah dinañ ko di dinañ ko matale bu baax a baax a baax incha rabbi. merci beaucoup Abdoulaye Mal la jaajëfal. jërëjëf Kadia jërëjëf Senghor euh, ba suba ci beneen numéro matin bonheur. très bien le rendez est donc pris pour demain à la même heure sur la même chaîne la 2STV dans votre émission matinale matin bonheur dans quelques instants vous pourrez retrouver Pape Sidi Fall son équipe ci seen émission euh, Good Morning quant à moi je vous donne au revoir.